ñu ngay për për ay bàyyi ko mu Oh, no, no, no. Tosi. Cara. Olha cá. Tá junto aqui? Não. Não tem man jël naa leen ñoom ñu xew. ma leen wax. Ah, waaw jël naa leen. waaw. man la ko waaw c'est fini. allez kay waaw jeex na jeex na allez c'est fini. c'est bon awa am na ay kii. ñaari seet. awa am na ñaari seet. awa am na ñaari seet. Mm-hmm. awa am na ñaari seet gis nga. fu ma leen mënoon yóbbu yóbbu leen. wallaay yàlla yàqu na ko. ndeysaan <laughs> ah vraiment. ñu demoon. Mhm. surtout kii. kii nag moo gis gën a tax. waaw waaw. ay yàlla. xam naa ne kii moom pour mu teg ko. prends-moi mujjee naa métti. ah mujjee naa métti kat. xale yi nañu toog nii allez c'est bon. lan la lan la yow looy jooy. kay yow yow da ngaa nekkoon kay toogal nii eh hop oh, voilà et toi voilà yow ah ah ah kenn awa ça va alhamdulilah deuxième fois ci ci ci année bi je pense bien que tamit du ñu du ñu yàggal parce que amaan na feneen fi ñu war a demaat yóbbu fa ay doom mais comme ni ñu ko waxee woon noonu lañ ko noonu lañ ko noonu lañ ko ëndee mais dañ la bëgg a présenter aussi suñu gan yi nga xam ne ñoom lañ àndal ci doom bi nga xam ne daanaka mën nañ ne bu ñoom amaana tey jii du du du demee nii waa AMI association euh, de mouvement humanitaire international nga xam ne ñoom ñoo ànd ak ñun tey ngir fas yéene indi indi indi ñu doom bi jàppale ñu ci ci ci activité sociale bii nii nii. ADS daan na faral di amal ay activité activité sociale mais ñoom bi ñu leen woowee ñoom dañ ci sawar bu baax a baax a baax a baax gunge ñu ci moo waral tey jii nii doom bi ñu ñëw nii nii massivement accompagne ñu vraiment depuis ce matin ñi ngi fi jóge ba Dakar ñëw ànd ak ñun ci ci doom bi mu nekk geste xam ne dañ koy magnifier bu baax a baax a baax a baax vraiment association bi moom commencé woon nañ seen activité depuis avant-hier comme ni ñu ko daan defee don de sang journée de consultation gratuite avec don de médicament bon tey randonnée pédestre la woon le matin le soir donc comme comme chaque année maintenant bon je pense bien que jarul ñuy on va juste passer la parole au présenter la association bi et puis suñu paree daal di daal di daal di jox waa ami bu fekk ne ñoom dina xam lu ñu ciy comme ay kàddu balaa balaa salaamaaleykum bi masque bi. maa ngi leen nuyu ku fi nekk ci dëkk la ak je pense que ne secrétaire général wax na bon association Jurbel santé moom association la boo xamante ne ay ndaw ñoo ko sekk ndaw yi nga xamante ne ñooy jàng ci wàllum santé am na tamit ñëpp ñi nga xamante ne dañuy nekk yëngu ci wàllu santé lu si mel ni ay infirmières ay sages-femmes d'État ay délégués médicaux et tout ça bon comme on a l'habitude de le dire le mérite appartient à celui qui commence même si le suivant fait mieux bon lii nii lépp idée rawaan la au début ñu ngi ko ci félicité di ko encouragé te gis nañ ne taxawaayam moom si ba mu bàyyee association ba mu liggéey bañ président ba léegi moom si nekk di ñu defal apporté ñu touche boo xamante ne mooy loolu noonu chaque jour ñu woo ko chaque jour ñu sonal ko bon cette fois ci nag don bi ànd nañ si ak ay partenaires yoo xamante ne partenaires yu disponible lañ yu accessible lañ bon je pense ni lu may wax rek mooy ay mots de remerciement laay wax quoi ay mots de remerciement en chemin bi emprunté nii c'est pas du tout facile parce que euh, social moom doo koy def lu nekk da nga ko dégg mais du tee tamit ngay nga si bàyyi xel loolu rek laa amoon si ma leen wax dinañ jox kàddu gi di leen remercier vraiment de la part de tous les membres de l'ADS ak de la communauté diourbeloise merci seen tur ak seen sant euh, di rafetlu teewaay bi euh, di gërëm tout d'abord le président Rawane ndax peut-être moom moo ma permettre moom mën a exprimer wu fii li nga xamante ni mooy sama engagement social yàlla xam na ni euh, bi ñu démarré l' activité était pourvue pour Kaolack sama yaay ji nga xamante ni elle est moom moo ma ne baba dama defi ko ak waa Diourbel man mën naa xaar donc moom ci baaxam loolu moo tax moom ñu aj ko ba janvier ñëw répondre li nga xamante ni moom mooy la demande de ADS. lii nag c'est une première am ñu yéene defaat fi yeneen activité yu ni mel ndaxte xale yi ñi nga xamante ni tey moom lañu indil lii euh, vraiment man mënuma téye sama bopp parce que ñii duñ ñii ils sont innocents xale yi xale yi euh, ñoom ñooy doon yi demain quelque chose ñii ñooy doon yi dara parce que tey kenn ku ci nekk ñaan nga yàlla nekk ak say waajur yi dafa métti donc ça veut dire que ko ñoom déjà ci seen bazar ñu ngi vivre benn handicap boo xamante ni mais kenn mënuñu lii kenn mënu ko expliquer kenn mënu ko décrire lii dafa métti dañoo ñoom ils ont demandé donc ma bañ a guddal rek ji leen wax ñi nag lii bu ma ko defee dafa ñu ma jàppale ñu ma jàppale nag kenn ñi muy Awa de depuis le début il n'a pas cessé euh, di ma encouragé tey li mu def nii dafay wane ni rek moom les gens ne l'ont pas compris nit yi xamuñu moom mooy kan huit heures la ma ko di di commencé di yéeg di ma interpellé xam nga ne ñaari contrat la amoon lu ñu waroon def dafa mujj xam sax lan lay ñaari contrat la moom parce que maa ko ne treize heures malheureusement ici au Sénégal avec les contraintes on peut pas fixer une horaire précise sama yaay ji ñoom Fatou Soxna ñoom sama tante Kouma Mbaye waa Central li yëpp seen œuvre la ñoom Khady Diémé depuis Paris seen soxna ku lim da ngay juum Mansour Mboup maa ngi remercier ñëpp di remercier aussi sunu xarit Ibou Mbacke néew fii mais sunu collaborateur la bokk ak Kër Rose donc lii mooy àdduna àdduna bi dafa jeex ba noppi social ci la ñu mën a exprimer li nekk ci xool bi waaw yal na jàmm yàgg yam jaar bu ma guddal jërëjëf yéen ñëpp merci beaucoup Père Bac am sama nit la Petit Fall Pape Cissé ñëpp tey ñoo mobilisé wu ñoo dooleel lii man ñii awma seen fay maa leen di gërëm yéen ñëpp waa DS di kontaan ci li nga xamante ni moom mooy partenaire bi du fi yàmm kon jël merci gisee yaayam a mais di gën a remercier madame Goum mm-hmm. tout ça c' est grâce mm-hmm. boo fi nekkul woon kon lu baax euh, ku nekk bu doon def as tuut ci nit yi kenn du sonn xale yi tey ils ont pas demandé à naître bu ñu sañoon am yaay ak baay te yàlla mooy dogal ñaan laa man parce que ñii ñooy avenir suba. ma leen di ñaanal di ñaanal aussi surtout madame Ngom pour mu mun a leen a accompagner mën leen a jàppale mën leen a taxaw moi Babacar tu m'as beaucoup surpris parce que xamuma la woon ci façade bii nii tu ma fait pleurer ah <laughs> jooyloo nga ma vraiment sama xol sedd na euh, des fois da ci baax ñu génn suñu confort ñëw gis réalité bi lii mooy réalité bi moo tax li nit war a sante yàlla bari na trop vraiment parce que boo xoolee lii ci ngay comprendre que ne àdduna du dara sama xol tooy na kontaan naa regretté ma lu tax ma bàyyi Dakar bàyyi sama confort ñëw Jurbel gis xale yi dana ma gën a yokk jom euh, dana tax sax lii lii day tax sax nga xam ne pasar pasar amul solo ndax loo war a pasar pasareel ci mbedd bi war nga koo mun a andil xale yi xale yaa ko gën a yellool ñoom ñoo ko gën a mérito kon yal na ñëpp am jàmm merci beaucoup. Moi, je parce que Babacar c'est un frère. en bien de toi. ci suba ba tey bàyyi nga sa yitte yëpp ñëw toog maa ngi remercier ñëpp ñu fi daje. Je dis que c'est des c'est des choses à faire. moi je joue dans social aussi mais si beneen aspect mais lii mooy Sénégal donc nous on a on a tendance à faire du gaspillage tout mais lii moo mooy lu gën lii mooy jaamu yàlla lii ku ko deful defoo dara donc jàppalante oriente nit ñi xool ni forme xale yi ba ëllëg ñu yor suñu dëkk suñu euh, ci yorin bu rafet c'est ça commence par ça du social jàppalante jàppalante nag c'est tout un sàmm c'est l'éducation l'éducation de base mooy yore dëkk mooy kii xale yu ndaw ngeen mais ADS je vous je félicite quoi chapeau parce que lii nii suñ ko amoon ci dëkk bu nekk du bëri ñit ñi dootuñu ko jooy ñu bëri duñ ko jooy xiif bi ñuy wax ak yooyu yëpp on peut le régler nous en tant que sénégalais on n'a pas besoin di wàllu yaan wala di def nangam état ñun la ñun ñooy état ñun ñooy gëm suñu bopp xam ne liggéey rek moo ñuy may dara donc moi je suis là j'accompagne sama sama doom la sax waaw <laughs> sama jëkkëru yaay la waaw <laughs> donc euh, lii la xam lii la war a def mm-hmm. lii mu def nii moom la xam ñun ci loolu la ñuy dund mm-hmm. au passage euh, chapeau yéen ñëpp maa ngi leen gërëm di sant moom Marie Baram ñaak mbay tout le maa ngi leen di sant di gërëm di gërëm ñi mu fi fekk vraiment lii c'est des choses à perpétuer dans toutes les régions du Sénégal et là on est là-dessus t'inquiète lii dinañ ko continuer te dinañ la ci jàppale yow Babacar danga am ndam ci kaw ak ci kanam rek ndam nañu yàlla defal jàmm defal ñu sutura defal ñu xéwal may ñu doole buñ ko defee yàlla nañu ko yàlla yàlla mën na ko te yàlla nañu ko yàlla defal waaw loolu laa amoon lu ma ci sànni. tey nii su ko sumbee yàlla moom dina si teg loxo mu mm-hmm. ko incha allah moom am nañ ci yaakaar bu baax baax parce que lii du tey du ma mën a expliquer rek parce que moom dafa am fu bëri foo xamante ni fa la fay fa fa la taxawu même fu mu dëkk seetaanu leen soo a ñëw fu mu dëkk dafa njëkkee lii fu mu dëkk. moo tax daal maa ngi jégaluwaat bu baax ci kàddu yi ndax mënuma wax ci moom daal jërëjëf. Ah, di nuyu ñëpp bu baax a baax a baax a baax waaw c'est madame Ndiaye madame Ndiaye Anoum waaw ah, je suis professeur de maths SVT à donc j'ai ma fille Rokhaya qui est avec ses frères et ses sœurs vraiment man bu ma leen gisee sama xol day sedd sama bëgg kuy def lu baax. ñoom amuñu dara fu ne xam ne ne seen bourse yi xaj na ci ñoom mais ñoom dañ ne en aucun dañuy jël ci seen bourse bi teg ko fële bon volonté bu leen fi fekk bu fekk leen fi ànd ak ñoom ñu dem ci population bi jàppale leen jàppale leen ci lan ci ay don de sang dañu capital jàppale leen ci lan consultation gratuite daa maman wax na ko léegi jàppale leen ci lan ci dalal leen wan leen na seen doom ci ay tànk yu baax lañuy jaar parce que ku am doom léegi tiit nga donc loolu man su ma ko gisee sama doom nekk ci ñoom du ma def lu dul kontaan te ñeex bi ñeex bii c'est pas la première fois plusieurs fois ñoom ñëw nañ kër ga dama dañu ñëw fii le peu bi ñu yoon xeebuñu ko kon man nii du ma def lu may di leen ñaanal yal na leen yàlla téye yal na leen yàlla jàppale yal na leen yàlla yeggale ci daraja Cheikhul Khadim yàlla mën na ko am na ko yal na leen yàlla jàppale vraiment fierté la ñu am ñun les parents pour gunge leen parce que da ngeen a neex a gunge kontaan naa vraiment je vous remercie de tout cœur merci beaucoup et bonne continuation bonne continuation man sant leen gërëm yi ginnaaw ba ma santee yàlla Seydina Mohamed sangu sangu di gërëm sama ñaari waajur di gërëm Serigne Babacar si sama sëriñ Serigne Salim Mbacke sama xarit sama sëriñ di leen ñaanal yàlla ndax bi yombul waaw te yàlla dafa amul wax ci ndaw ñi te Seydina Mohamed lu mu wax rek yàlla moo ko wax nee na képp kuy jël sa doole wala ngay jël sa alal di ko bokk ak ak tànk yi nee na yombal xiyaam mënoo fexe ba doo bokk Seydina Mohamed àjjanay Firdawsi Seydina Mohamed moo wax loolu te lu mu wax yàlla moo ko kon boo xale yoo xam ne tey ku ci gis sa yaay ci photo rek nga ko gisee xale bu nekk ak ni fi ñëwee yéen seen xel ak seen xalaat ak seen doole yëpp ngeen ñëw partagé ko ak xale yi kon boobu bu ma def bu may di leen ñaanal di gërëm yàlla kumba ba léegi di ña di leen ñaanal yéen ñëpp ndax boo limee da ngay yàlla na leen yàlla may gudd fan yàlla na leen yàlla may wér yàlla na leen yàlla taxawal. waaw beneen diplôme mi ngi waaj bi duñu xam ne ñu ko war a defee. yàlla na leen yàlla dolli gunge. yéen ñi leen di gunge yàlla na sax. te yàlla ñaare na mu dem rek. afalaat xool naa la gis naa la. merci beaucoup et voilà. merci beaucoup. merci beaucoup. chance mérite du chance mérite loolu ba du chance mérite. c'est bon. voilà merci. non yaa ngi ñu xale yi si seen gàtt di la présenter dans un premier xale yi xale yi yoo xam ne nekk si yoon la boo xam ne nag yoonu xam-xam ak ay étudiants la ñu loo xam ne. Mhm. ñii ñu ngi bëgg nekk médecin. Mhm. ñii ñu ngi bëgg nekk euh, dentiste. Mhm. ñii ñu ngi bëgg nekk pharmacie. am daal si mbirum faj bu ñu jaaraam mooy yooyu la ñu nekk. am na benn association boo xam ne. ku dëkk Diourbel. santé. ñii dañuy booloo. bien que amuñu xaalis bu bari. rawatina seen rakk yi nga xam ne ñu ngi si daara bi di jàng alxuraan ak ñi nga xam ni si mm-hmm. popo ñi moom ñi nga xam ne seen yaay seen seen papa mm-hmm. bi nekk mm-hmm. ñu fi ñu leen foofu foofu ñu jur ñu sax ndeyoo maanaam daal dañu nekk si di def lu baax ak nekk loo xam ni dañuy ñi nga xam ne amuñu lu fay hôpital ñu dem ñoom comme suñu ñuy jàng bokk seen moom ñi xam ne xaw nañu pare ñu jàppale leen ñu faj ñu moom seen yaram ñu ay garab ci seen doxal si tënk daal ñu ñu wax ni ñu ñu jàppale baax dimbale jàppale lay ñu ñi nga xam ne seen loxo def seen ginnaaw aussi tànk yooyu ñu ñu jàppale daara ji dëgg la yoon bi nag benn la tey mais day commencé wallaay wallaay moo tax ma ni yow sa bopp laa lay ñaan xam naa yow li ma sekk ak yow te xam nga yaakaar bi nga am si moom lay lay jaay man sama waay la am naa yaakaar bu génn si daara ji tamit fenn suñu daara ji kër ga daara ji xale yi jaar si moom yëpp macha allah chaque année fii day mel na gàmm man fi lay gàmm donc am nañu yaakaar bari si moom dañ ma lay njëkk ñaan nga ñaanal ma ñaanal ma xale yi yëpp vraiment yoon bi ñu tegu yàlla jox leen si ndam incha allah dana am vraiment seen association ñu jëm kanam seen i moromam. vraiment nañu nekk si kaw ci kanam la. incha allah rabi mooy am mooy am leen yéen ñëpp ngeen yegg si. wallaay wallaay gars yi waaw waaw dëgg la vraiment loolu moo doon tànk yi. dëgg la dëgg la gars yi dëgg la. xam naa sax xar na trop parce que am na yeneen manifestation. waay waay dëgg dëgg la kay dëgg la dëgg la Ndiaye waaw moom day Ndiaye ni nga ko waxee. Eh, rek eh, eh, moom itam day ginnaaw buñ la buñ jiitalee cant bi ci yow. Mm-hmm. waaw ndax lii lépp wax dëgg yàlla sa yéene la. Mm-hmm. maanaam ak. yéene jooñu yéene ak itam maanaam wax dëgg yëg goo yëg barab bi ak jàpp ko jàpp mm-hmm. waaw tey wax daal lu lii maanaam ndox dëgg yàlla dimbali nga ñu defal nga ñu ay tilaaka ba tàyyi mm-hmm. moom ñu ngi leen koy seereel ci mm-hmm. ngeen dégg ko kon nag euh, lii ñu tàmbali maanaam am nañ yaakaar ci bu soobee yàlla kenn ku ci ne day da nga dem ba la la nga yóotu da ko jot na ko bëgg bu soobee yàlla ndax yàlla moom moo moom lu baax te képp koo xam ne bii bëgg nga lu baax te xëcc jëm ca suñ borom dana la dimbali waaw ndax dañoo wax ni loo bëgg soo ko wutee rek di ko am waaw te lu baax moom ginnaaw boo ko bëggee bëgg gi rek doyu faw da nga koy boo ko wutee nag suñ borom dina la ko jox ndax suñ boroom añaanu te jeexalu dara waaw tey it euh, lii ngeen def maanaam jëf la joo xam ne rëy na ci nun lool rëy na ci loxo gone gone yoo xam ne wax dëgg yàlla maanaam jàng alxuraan rek la ñuy dëkk. Mhm. kon saa yoo leen tax loo leen dimbalee ba nga xam bii danañ mën a am mm, jàmmi toog jàng. Mhm. wala ñu mën a am mm, njàng ma gën a gën a dox gën a baax. Mhm. rek loola moom suñ borom nga liggéeyal. waaw te jihaat ju mag a mag la joo xam ni maanaam jihaat féetewu ko xaw waaw kon nag. maanaam mm, ñu ngi ñaan yàlla suñu borom daal yal na leen teg loxo te itam yal na leen barkeel te itam yal na leen musal te itam li ngeen di yootu yal na ko saa yàlla teg ci seen loxo ñaanal leen sa réew mi itam maanaam yàlla sax borom man naa def ba mujj ci seeni loxo yi waaw loolu moom ndax yéen moom bu tegoo seeni loxo rek moom moom wax dëgg yàlla moom daal dana baax waaw dana dana gën a baax daal kon nag daal yàlla na suñu borom yàlla sàmm te taxawu leen te yokk leen saa yërëg baatin waaw wax dëgg yàlla mu lay beral sa cant bopp di ko waxal rek wax dëgg yàlla lii lépp ak baaxam rek waaye du daanaka defalul ko lu am solo eh. lool <laughs> ndeysaan même sëñ af ñu fi jaar dañuy dellu si mhm. ak ñu yar ni mu si xale yi ñu fi jël ñëpp nag macha allah am nañu seen soxna affaire yi ndeysaan mariage bi ma dem am nañu fa toog mhm. mais yar bi am si nit mhm. xam nga nit euh, suñu borom xam naa ni sax du ma toog si daara a jàng alxuraan dëgg la suñu borom dëgg la dëgg la xam mi ngi naan yëkkatiku ñu gën a gis si suufeel sa bopp. dëgg la sëñ As sax du ma sax wax ñu bare quoi. mais dëgg la wallaay jaay day suufeel sa bopp boobu moom la def ba ñu bare xamuñu ko sax. Mm-hmm. vraiment man fi ma ko teg dafa kawe. dëgg la wallaay sama cant bi may def année bu nekk. Mm-hmm. moom dafay teew teew woo xam ne te mosuñu gis koo xam ne teew koo xam ne ay teew vraiment man moo tax mënuma ko fay dëgg la ñii nag moom dama leen fonk lool lépp yow parce que mhm. su ma gisee di jàngal ay junne junne yi mu am ñenn ñoo xam ne mhm. ràññeeku nañu ba ma mhm. mu jaral ma yàq samay activité xam ne ñoom ñu si yoon bu baax ay xale yu am respect lañu si nit wallaay ndeysaan même boo nekkee seen biir sa xaw kii tuuti sax di nga gis respect bi lay jox vraiment vraiment loolu rek moom tawféex la tey mu nekk si yoonu baax loolu moo ñu waral waaw ñu bàyyi suñu lépp dëgg la ñëw aussi di jëm am foo xam ne aussi dañ fa am yaakaar bu baax dëgg la wallaay wallaay taxawaay rafet li nga def si xale yëpp la dëgg la njaay vraiment moo tax man fii sama kër la ndax waaw seen kër lay nekk ñaanal ma leen daal ñaan yoo xam ne moom ñoom bu nekk yi kenn du seet seen bopp incha allah loolu daal la jógee ñoom ñëpp daan yokk incha allah sant nañu lool wax dëgg yàlla dégg nañu ñu itam. yéen leen saa borom yàlla taxawu. amiin amiin amiin. waaw incha allah.